Covid 19 ñi ko jot am ci àdduna wërngal képp toll nañ ci vingt six millions neuf cent six mille trois cent trente huit ci ay doomi aadama dix sept millions neuf cent soixante trois mille neuf cent vingt sept ci aji tawat am ka bu nuppi huit mille huit ci ay doomi aadama itam jot cee dëddu. ginnaaw nag lim bi ci àdduna wërngël képp fi ci réew bu Sénégal lu tolloog treize mille neuf cent quatre-vingt-sept ci ay doomi ñoom ñoo ko jot a amee neuf mille neuf cent vingt-deux ci itam jot ko am ba wér cent quatre ñoom ñoo ci jot a uji bi. réew bu Sénégal fu ci mel ni réew bu Mauritanie foofu itam mbas mi mi ngi wéy di def ay njombe lu tolloog 7134 ci ay doomi aadama ñoom ñoo ko fa jot amee 6658 aji tawat am ka ba nuppi lu tolloog 160 ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot ñàkk seen bakken ginnaaw tunduwu Afrique fu ci mel ni Italie foofee nag 276338 ci ay doomi aadama ñoom ñoo ko fa amee 209610 ci ay doomi aadama itam am ko ba nuppi 35 534 mindeef jot see ji borom bi li leen nekk lim bi ci na wërngal këpp ak yenn ci ay dëkk dëkkaan yoo xamante ni ñu ngi ci xarnu bi coronavirus wéy di def njombe dëkk bu ci nekk itam di wéy di na si pexe Cheikh Diop ñu koy sant bu baax di ko gërëm muy taxaw seetlu bi ci euh, mbas bi ak itam àddina war nga këpp di fàttali Sénégal itam ne moom mbas mi it mi ngi wéy euh, di am ay cas ba léegi ñuy fàttali askan wi ñuy takk masque yi fu nu mën a toll euh, di moytu dajaloo bi consigne yi la gis ngeen sunu kilifa diine kilifa aaday waaye itam ñoom ñëpp ñu ngi ñaax askan wi rek ñu takk seeni masque kon c'est important muy parenthèse boo xam ne dañ koo jagle lu jëm ci wàllum sensibilisation bi nañu ci jàngat bi dañ ci ànd ak